Macky Sénégal di ONG Hope for African Children di initiative pour l'espoir des enfants africains ci seen lëkkaloo ak rajo Afia FM ñoo leen di jagleel yile émission ci maladie tropicale négligée di MTN engagement des autorités étatiques collectivités locales, leaders, acteurs communautaires, société civile, secteur privé ngir xeex les maladies tropicales négligées yooyu émission nag ngeen di ci ànd ak Fatou Ndiaye ajuma bu nekk lay doon bu 17h jotee jàpp 18h ci seen rajo Afia FM 93.0. jërë ngeen jëf mbokk auditeurs Afia FM yi ñu ñëwaat ak yéen seen émission bi ñu jagleel wàllu maladie tropicale négligée maladie nag tropicale négligée di feebar yi nga xam ne eh, dañ ko eh, xaw a naxasal fii ci sunu réew ñu ci amal nag ay série d'émissions yoo xam ne euh, moom la ñuy waxtaanee ak askan wi ponk tey ji euh, bi ñu fas yéene waxtaanee nag jëm ci li nga xam ne moo di plaidoyer bi ñu bëgg a def ngir rek fexe ba yokk li nga xam ne moo di ligne budgétaire bi waaye yokk ressources yi koppar yi nga xam ne moom la jagleel paj mi jëm ci feebar yi di maladie tropicale négligée di MTN Euh, ci biir waxtaan bi nag dinañ ci ànd ak euh, honorable député Théodore Chérif Monteil di euh, député à l'Assemblée nationale bokk ci parti bii di Union citoyenne bunt bi nekk aussi membre bu Benno Bokk Yaakaar honorable député ñu ngi lay nuyu di la danal ci émission bi. salaamaaleykum Fatou maa ngi leen di gërëm di gërëm Afia FM ci liñ ma invité pour ñu waxtaan ci. Euh, sujet bu am solo bi di maladie tropicale euh, négligée di leen euh, nuyu di nuyu seen auditeurs yi ak seen auditrices yi di nuyu waa Sénégal yëpp. honorable ñu gis ne fii ci Sénégal dafa am yenn feebar yu ñuy woowee MTN di maladie tropicale négligée. alors maladie tropicale négligée dina sawar torop pour waxtaan ci. parce que lépp lu laal ci wérgu yaramu doomu aadama man daf ma itteel. daf ma itteel en tant que nit d'abord itteel ma ensuite en tant que député euh, boo seetee ñun euh, ci suñ parti Union Citoyenne Bunt bi euh, programme biñ nekk di tabax service prioritaire de base yi santé moom lañ teg ci kaw alors maladie tropicale négligée suñ ko doon tekki ci ci wolof dafay nekk maanaam jàngoro yi nga xam ne dafay am ci suñ dëkk yi dëkk yu tàng yi Euh, te yitteelul kenn maanaam euh, recherche scientifique bi daal euh, ñoom yitteelu leen lool dugaluñ ci seen loxo torop dugaluñ ci xaalis bu bëri daf di jàngoro yoo xam ne daanaka boo koy seetlu ci millier yi nga xam ne nit ñi dañu pauvre milieu yu salte yi nga xam ne dafa tàng bëri humidité bëri ndox di taw lu bëri foofu lay gën a di di attaquer nit ñi alors euh, boo koy seetlu ay ay parasitose la médecin yi parasitose lañ koy wax maanaam euh, ay ay ay parasites ay parasites ñoo koy ñooy joxe maladie yooyu parasites yooyu nag euh, la plupart du temps ay insectes ñoo koy transmettre insectes yooyu mun na nekk yoo mun na nekk weñ Euh, transmission bi tamit mun na jóge ci ndox mi ndox mi nga xam ne dafa dafa dafa ndox mu salte mi nga xam ne euh, nenu sax yéeg yooyu dañ ci jaxasoo euh, bu ci nit ñi duggee wala ñu xuus ci mun nañu jàpp maladie yooyu. lii di maladies tropicales négligées yi di MTN nag dafa di feebar yoo xam ne bokk na ci euh, feebar yi nga xam ne ñàkk moo ko waral waaye it ñàkkum ndox ak problème mu assainissement. maanaam daal ay feebar la yoo xam ne euh, ci ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole lay gën a feeñ. nga nekk député à l'Assemblée nationale ndax yaakaaroo ne. xel yi dina waroo lool ci jamono ju ñuy wax ne Sénégal day jëm ci li nga xam ne moo di wàllum émergence te feebar yu ni mel di fi woy di am ba léegi est-ce que biir assemblée euh, nationale di ngeen faral di waxtaane euh, jàngoro yu ni mel. alors ndax euh, assemblée nationale dina ci waxtaan. Euh, normalement assemblée nationale lépp lu yitteel doomu aadama lépp lu yitteel askan wi dañ ci war di waxtaan Euh, ni assemblée tëddee nag tey mun na am ne que am na ay difficultés pour ñu waxtaan ci sujet yooyu parce que expertise bi généralement amuñu ko xam nga dañ am assemblée nationale boo xam ne bëriwuñu expertise xam nga assemblée nationale yu mag yi nag euh, ni ñi dañuy wax toujours ne député yi xamuñu dara wala yooyu député normalement métier du nekkul mu nekk médecin wala mu nekk ingénieur député dafay toogal ndaw la dañ ko yónni. donc bu ñu la yónnee dañ la war a jox ay outils tamit jox la ay experts jox la ay moyens pour ngay waxtaan ak experts yi ñu lay xelal ci yenn dossiers yi nga mun a def ay questions orales wala ay questions écrites euh, di au ministre yi ñu ciy waxtaan. donc techniquement assemblée nationale war na waxtaan ci lépp donc war na waxtaan ci. lii nga xam ne dafa itteel àddina bi yëpp itteel Sénégal tamit dina dellu si ci ni ci Sénégal di liggéeyee mais daal di wax ne que Euh, sujet bu intéressant la waaye implication bi ci assemblée nationale waroon am actuellement amu ko ci te explication bi mooy que ne aujourd'hui suñu assemblée bi amuñ expertise bi ñu may ñu mun a xuus ci yenn sujet technique li nga wax noonu dëgg la dëgg gu wër péng la euh, maladie tropicale euh, négligée statistiques yi dañuy wane ne que fi nit ñi gën a ñàkkee fi ndox ñàkkee fi assainissement ñàkkee fi salte bi bëree foofu lay gën a euh, sonal doomu aadama euh, est-ce que euh, loolu du contradiction ak li ñuy woote ci émergence boo seetloo depuis soixante ans ñu jël suñu indépendance façon plan bu nekk am na Sénégal en particulier ci Afrique en général avant dañ doon wax sous-développement Euh, ñu ne dañuy def ay plan pour génn ci sous-développement bi après ñu def ay plan d'ajustement structurel structurel di wax waxi euh, pays euh, en voie de développement ñu bàyyi terme sous-développement di wax pays en voie de développement après ñu dem nag léegi ci émergence donc da ngay seetlu ne à chaque fois ay slogan ay ay déclaration la ñuy def donc euh, euh, ay politique volontaire de citoyenneté d'engagement euh, amagul donc mais nag problème bi du problème mu état rek am na tamit problème yoo xam ne responsabilité citoyen yi la léeg-léeg boo seetloo nit ñi dañuy nekk ci ay dëkkuwaay yoo xam ne normalement waruñ fa woon dëkk te euh, dañ fay installé wu après di jàmbaarloo ak ak état ne duñ fa jóge day indi après ay problème assainissement indi ay problème environnement donc yooyu yëpp boo ko seetloo euh, da ngay euh, solution bi dafay complexe solution bi du solution financière rek solution bi c'est une solution globale dañ ko war a saytu bu baax toog teg ay équipe pluridisciplinaire ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy dañ nekk ci ay sociologie ñi nekk ci étude environnementale ñi nekk ci médecine ñi nekk ci euh, finance économie ñëpp dañ ci war a réfléchir pour trouver ci ay solution solution am na ci am na ci même bu fekkee ne suñ pays du pays riche buñ ñëwee ci moyens yi ñu war a euh, développer pour euh, vaincre maladie yooyu dinaa ci delluwaat parce que en tout cas scientifique yi wane nañ nekk soxlawul moyens yu bëri volonté politique la laaj ak organisation buñ ci yegg te dinaa ko gën a ndax yaakaaroo ne eh, jàngoro yu ni mel war nañ ko gën a bàyyi xel jox ko gëdd bu am solo ca assemblée nationale wala sax mu nekk fa ab question orale boo xam ne dinañ ko poser ñi nga xam ne ñoo di di ministre yi ngeen ñu mën ci indi eh, tontu. Fatou question bi am na solo euh, xam nga bépp gàllankoor buy dal askan wi. Euh, député yi war nañ ci gëstu assemblée nationale war na ci waxtaan. Euh, parce que xam nga dëkk loi moo koy doxal te loi assemblée nationale lañ koy voté donc bépp gàllankoor lépp lu dal askan wi lépp lu dal ci dëkk bi assemblée nationale daf ci war a waxtaan. Euh, rawati ci nag euh, ay feebar yoo xam ne dafa mel ni bilharziose mel ni filariose lymphatique bi nga xam ne mooy joxe xuuxaan mel ni trachome bi gumbolo mel ni onchocercose mel ni lèpre mel ni dengue euh, lim bi Sénégal boo ko seetloo ñu ngi ci fukki jàngoro ak ñett yu yu ñuy ooyee MTN maanaam euh, maladie tropicale négligée yoo xam ne ñu ngi koy suivre yooyu dañ ko war a waxtaanee assemblée nationale parce que buñ ko waxtaane assemblée nationale dinañ ci mën a légiférer buñ ci munee légiférer dinañ ko mun a dugal ci budget Sénégal parce que boo ko seetloo tey 0,6 pour cent budget Sénégal moom la ñu jagleel genre yi feebar yooyu jàngoro yooyu te jàngoro yooyu amaana ne que du rey torop waaye dafay laagoorloo Euh, ñi laago ndax jàngoro yooyu bëri na xale yi boo demee dans le fleuve Sénégal fi mu nekk nii euh, quarante pour cent des enfants am nañ bilharziose dañuy saw deret loolu daf leen di gàllankoor ci njàng daf leen di gàllankoor ci lu bëri te xam nga xale bu jàngul mooy dëkk bu avancé wul munoo wax ne da ngay def émergence ba pare doo toppatoo xale yi donc jàngoro yi dañ ko war a waxtaanee assemblée nationale mais comme ni ma la ko waxee woon ci njëlbeen nga. assemblée nationale problème am fondamental fi mu nekk nii mooy manque de ressources humaines parce que député rek doyul député dafa war a ànd ak expertise dañ ko war a jagleel doole doole joo xam ne dafa nekk ci ay moyens humains ak ay moyens financiers yoo xam day tax ñuy mun di xalaat di gëstu parce que science dafa xóot te du ku nekk mooy jóg di wax ci lu nekk xam nga man du ma jóg mu ne député laa rek maa ngi wax ci affaire jàngoro maa ngi wax ci affaire feebar donc dama war di waxtaan ak ay médecins waxtaan ak ay experts te experts yooyu dafa am lu muy jar donc dañu war a am vraiment une volonté politique bu tax ñu jël alal ju bëri jagleel ko jàngoro jooju jàngoro yooyu ma maanaam euh, euh, maladie tropicale négligée yi daal di ci liggéey bu baax pour. Euh, éradiquer ko. lan nga yaakaar ne moom la ñu mën a def ngir xeex feebar yi définitivement jëlee ko fi carrément ci biir Sénégal. damay euh, euh, ñaax suma naataango député yi di leen wax ne que légiférer moo yore dëkk maanaam tëgg ay loi ay charte Covid 19 dafa lëmbee jamono dafa yegsi bett ñu euh, wan ñu nekk dañ war a am nekkin bu bees naam dëgg la waaye bu ñu fàtte bilharziose bilharziose mu ngi euh, gàllankoor xale yu bari fii ci senegal mu ngi leen di tere dem école di leen sawloo deret bu ñu fàtte filariose lymphatique di indi xuuxaan di tas sëy bu ñu fàttee trachome di laagaloo di gumbaloo bu ñu fàttee onchocercose bu ñu fàtte ngaana bu ñu fàtte dengue bu ñu fàttee paludisme sibiru jàngoro yooyu ñoo bloqué développement suñu dëkk yi olof njaay nag daf ne mbéjum kanam boroom moo koy fajal boppam bu ñu toogee di xaar partenaire technique yi wala ay ONG wala bitim réew di ñu jàppale ci suñuy jàngoro duñ ko mos a saafara parce que comme niñ ko waxee maladie tropicale négligée tur bi tënk na lépp dañ ko négligé parce que industrie pharmaceutique bi intéressé wu leen ay maladie yoo xam ne garab yi duñ indi xaalis boo xoolee ni ko OMC saytoo 0,50 cent dollar buñ ko dépensé par nit ci at mi ñu saafara jàngoro yooyu lu tax defuñ ko parce que intéressé wul kenn ñun nag ñoo war a jóg def si suñu jot def si suñ kàttan def si suñ xam-xam def si suñ doole def si suñ alal parce que jàngoro yooyu jóge fi parce que jàngoro yooyu ñuy freiné véritablement suñu développement. ñu gis ne euh, ligne budgétaire bi maanaam téeméer boo jël zéro virgule six donc euh, la ci ministère de la santé jagleel feebar yi di MTN yi. yaakaaroon ne lu ni mel euh, dafa néew ngir ngir faj yenn wopp yi. paaru budget bi ñu jagleel maladie tropicale négligée yi zéro virgule six pour cent tuuti na torop mais rôlu député. du yokk budget ministère parce que budget ministère fañ koy tabaxee député du fa toog député moom dañ koy indil budget mu saytu ko xool ndax méngoo na ak ëllëgu dëkk bi mu voté ko wala mu ne lii duma ko voté waaye député amul sañ-sañu ne bind leen lii wala bind leen lale en tout cas assemblée nationale au Sénégal tëddeewul noonu donc ñun dañuy indil budget ñu saytu ko xool est-ce que budget bi méngoo na ak fi Sénégal bugg dem ëllëg bu méngoo ak fi Sénégal bugg dem ëllëg ñu voté ko bu méngoowul ak fi Sénégal bugg dem ëllëg ñu teg ci suñu baaraam ne ah lii ak lii ak lii xalaat nañ nekk du loolu la Sénégal soxla donc su fekkee ne dañu jagleel maladie tropicale négligée yi 0,6 pour cent député bi foog nekk 10 pour cent lañ ko war a jagleel wala 20 pour cent mun na ko wax waaye loolu du tax ñu soppi ko. parce que budget député du ko tabax exécutif moo koy tabax exécutif mooy tabax budget donc boo boo yoree dëkk nag da xam dëkk bi naka la ko yoon tëralee donc député sañ-sañam yeggul ci mu ne budget bi def leen fii dërëm def leen fële ñaar dërëm mun na nag wax du ma voté budget bi mais même député bi bu ne du ma voté budget bi exécutif bi yoon may na ko mu am ay jaar-jaar pour exécuter budget moo tax dañu war a waxtaan dañ war a waxtaan dañ war a xool bu baax lan lañ buggal Sénégal di si une génération maanaam di si fukki at ak juróom di d'ici fanweeri at ban façon sénégalais lañ bugg lan lañ bugg pour dëkk bi et cetera te lool waxtaan ak échange moo koy réglé donc bu fekkee exécutif bi dafa am ay priorités yoo xam ne méngoowul ak li Sénégal bugg loolu dañ ko war a waxtaanee ba ñu xam. lan lañ war a tabax lan lañ war a teg mais sañ-sañu député vraiment ah ci ni ma ko jàngatee ak ci ni ma ko xamee nekkul changer budget ndax yaakaar nga ne mën nañu xaar député porter combat wu plaidoyer bi jëm ci MTN yi. alors porter le plaidoyer porter plaidoyer maladie tropicale négligée ah kooku xaw ma ndax am na. ay député yu ko war a def de waaye de man maa ngi à la disposition du peuple sénégalais parce que Sénégal ñoo ma fal ñoo ma teg euh, man ndaw dong la euh, du suma coobare bopp moo ma yóbbu assemblée nationale te damay wax toujours que ne man serviteur la dama jóg pour jëriñ dëkk bi donc sacerdoce bu ma jël la donc bu ma sénégalais yi soxlaa ci dara damay tontu toujours naam. donc bu fekkee ne dafa war a am benn député rek bu war a porter le plaidoyer des maladies tropicales négligées Théodore Chérif Monteil pare na pour porter ko te je le porter au flambeau ñu gis ne Covid 19 bi mu ñëwee ba léegi euh, bari na yenn programme yoo xam ne dañ ko euh, teg de côté yu ci bëri dafa mbe mu jur nag sax yenn musiba ak yenn ñoo xam ne sax dañ si ñàkk seen bakkan ci yenn wopp yi nga xam ne euh, paj mi demeetul na mu doon demee ndax yaakaaroon ne nguur gi war na mën a taxawal ab programme bu yees boo xam ne même su fekkee ne yenn feebar yi am ci àdduna wala yenn crise sanitaire yi amee ñu mën a Euh, wëyal li nga xam ne moo di paj mi jëm ci yeneen wopp yi rawatina feebar yi di MTN yi. Covid bi moom dafa soppi àddina wërngal këpp du Sénégal rek àddina bi yëpp la Covid soppi donc approche yi dafay changer mais loolu nag ñiy def prospective xamoon nañ ko maanaam ñiy saytu ëllëg xamoon nañ ne que àddina mu ngi soppeeku dinañ am ay événement yoo xam ne dina. soppi suñu gis-gis ci àddina bi suñu demin ak suñu jëfin donc euh, am na dëkk yoo xam ne tel nañ ko comprendre jël seen matuwaay Sénégal boo gisee gestion Covid 19 bi ci dëkk yi ko mieux gérer lañ bokk parce que ñun dañ am expérience ci gestion épidémie gérer nañ ay choléra gérer nañ ay euh, épidémie méningite gere nañ fi ay épidémie géré nañ fi sax Ebola donc am nañ ci expérience moo tax euh, première décision yi ñu jël mais ñu ñu euh, freiner expansion épidémie bi assez rapidement mais loolu doyul boo gisee phénomène yu bees yu lay attaqué da ngay soppi sa demin donc fi mu nekk nii dañ war a xalaat autrement xalaat autrement mooy di def Euh, au-delà de de la planification ñuy def prospective prospective nag science la boo xam ne dangay ngay information yu bëri yoo xam ne dañu xew démb ak barki démb nga sukkandeku ci pour xool ëllëg lan lay doon bu ñu sukkandekoo ci expérience bi ñu am ci démb ak barki démb ci li xewoon dinañ xam ne que changement climatique dina am gis nga taw yi fi am démb ak barki démb euh, Euh, réchauffement climatique dina am et cetera et cetera épidémie yu bees dina am te euh, contagion bi dafay gën a gaaw parce que dem beeg dikk bi dafa gaaw da ngay yeewoo tey Dakar fanaani Pékin et cetera ndekkee ji Washington loolu yëpp dafa tax ne que monde bi village planétaire la comme on dit donc dafa war a tax ñu soppi suñ jëfin soppi suñ jëfin am ay comportement yu bees comportement yu bees yooyu nag. dañ koy war a basé ci éducation moo tax jàng bi am solo moo tax ñu war a tàggat suñ ndaw yi moo tax ñu war a won xale yi lan mooy ëllëg lan mooy ëllëg tey lañ koy tabax boo préparé wul tey sa ëllëg daf lay bett bu la bettee nag mun la. lan nga yaakaar ne moom la ñu mën a def ngir xeex feebar yi définitivement jëlee ko fi carrément ci biir Sénégal. alors li ñu war a def pour euh, éliminer maladie tropicale négligée yi euh, dafa dafa levier yi dafa bëri levier yi dafa bëri parce que boo waxee maladie nit ñi dañuy xalaat automatiquement faj waaye maladie bu ñëwee c'est parce que dafa. prévention dafa amul maanaam dañu sàmmul bu ñu sàmmoon ca njëlbeen nga maladie bi du yegg si et dañuy wax euh, dañuy fàttali ne que dañuy wax maladie tropicale négligée euh, ne que fi nit ñi ñàkkee fi nit ñi ndoolee fi fi salte bi bëree fi ndox mi di taayee et cetera et cetera foofu lay am donc booy xeex problème da ngay dem ca reen ga boo daggee reen ga problème bi du sax donc loolu la ñu war a njëkk a fekk donc au lieu ñuy xalaat d'abord injecter xaalis ci budget pour fekk nit ñi dañ war a xalaat def prévention c'est-à-dire à l'origine dañ war a dem ca ca ca reen ga xam ne que lii moo indi jàngoro ji lii indi jàngoro ji mooy lan mooy pauvreté mooy insalubrité mooy manque d'assainissement mooy dëkkuwaay bu baaxul et cetera et cetera ñu xeex loolu euh, parce que. Euh, fec moo gën a jafe euh, ki prévenir ni ko ni ko tubaab di waxee xawma nan lañ ko waxee ci wolof waaye prévention lañ war a gën a def def de telle sorte que nit ñi jàngoro ji du leen dal parce que bu leen jàngoro ji gënee dalee ba pare après da ngay nekk di ko dàqe te jàngoro bu la jiitoo daf lay mën donc dañ war a dem ca racine ba te pour ça dañ war a am volonté politique encore une fois volonté politique mooy lan mooy wax ne que suba ak gannaaw ëllëg lii laay def pour que nit ñi mun a nekk nekk ci nekkin yi mun a mun a dundee dundin bi et cetera et cetera maanaam def planification xool ëllëg bañ xool ci suñu weewu tànk te ñun Sénégal nag li ñu li ñu sonnal mooy que gestion au quotidien la ñuy def maanaam dañuy xool tey rek duñu xool ëllëg donc buñ buggee maladie yooyu jóge Sénégal définitivement dañ war a def planification xool ëllëg xool naka la ñuy tabaxee suñ dëkkuwaay yi xool naka la ñuy defee suñ nekkuwaay yi xool naka la ñuy jàngalee suñu xale yi. honorable député Théodore Chérif Monteil maa ngi lay sant di la gërëm di fàttali ne député nga à l'Assemblée nationale euh, nekk ci parti bi di Union citoyenne buntu bi nekk it membre ci Benno Bokk Yaakaar euh, ñu doon waxtaanee ne tey jii plaidoyer jëm ci li nga xam ne moo ñeel feebar yi di MTN ak taxawaayu euh, député yi. Euh, ñu ngi lay sant di la gërëm ci disponibilité bi di jaajëfal mbokk auditeurs yi di leen dig daje ci beneen ajjuma incha allah ci beneen ponk bu ñeel wàllum maladie tropicale négligée di MTN Aki Sénégal di ONG Hope for African Children di initiative pour l'espoir des enfants africains ci seen lëkkaloo ak rajo Afia FM ñoo leen di jagleel yile émission ci maladie tropicale négligée di MTN engagement des autorités étatiques collectivités locales, leaders, acteurs communautaires, société civile, secteur privé ngir xeex les maladies tropicales négligées yooyu émission nag ngeen di ci ànd ak Fatou Ndiaye ajjuma bu nekk lay doon bu 17h jotee jàpp 18h ci seen rajo Afia FM 93.0.